salaam sama gaay yi nuyu naa leen bëgg naa leen te tamit ziar naa leen te di leen delloo ziar yéen ñëpp c'est votre Sista Kenza tey nag dama ñëwaat rek pour wax ci benn thème mais gaay yi thème bi nag benn blème la blème boo xam ni kenn xamul kan moo am dëgg lan moo waral blème bi ak ban blème la. gis ngeen temps yi Macky Sall recevoir woon na quelques personnes yoo xam ni ci aar bi lañ bokk ñëwoon foofu ca biir pale présidentiel ne ñoom ñoo représenté acte culture urbaine. fu malaat la ak Matador xumaan Dip Doundou gis OMG ak DJ Awadi ñoom ñoo demoon pale mais gis nañ ba ñoo ñu demee pale ba ñëw ci la blème bi commencé fan la wax bi jógee bañ xam ne am na lu xew nit dof daal leen gis mu def benn vidéo di ci wax ak ñi demoon pale ne ñoo ñooñu seen intérêt bopp moo leen fa yóbbu gars yi avant ñuy xuus nag ci biir thème bi n'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne YouTube Kenza 221 d'activer la cloche de notification de liker la vidéo et max de partage avant tout ñu xooli intro bi ñëwaat léegi léegi. ok sama gaay yi ñu wax nag ci blème bi lan moo ko waral ak nan la demee ak tamit kan moo am dëgg. alors lu tax nag waxuma si depuis lors c'était juste que ni dama doon xaar ba am version wu ñi demoon pale parce que man vidéo nit dof rek laa gis muy wax ci internet bi di expliquer te balaa ngaa gëm waxu kenn nag foog nga xaar version wu ñeneen ñi ba pare. ok gars yi ma expliquer blème bi nu demee gis nañ fan yi ñu génn président ak accueilliroon na ay rappeurs ci biir pale ba rappeurs yi fa demoon nag gis nañ ni kii di fu malaat la ak matadoor ak xumaan Dip Doundou Guiss DJ Awadi ak OMG mais bañ demee pale lu ma gis ci titre bi nee nañ ñoom ñoo représenté actu culture urbaine lan lañ defi woon pale lan lañ fa wax ak lan moo leen wax ni ñoom ñoo représenté actu culture urbaine loolu nag gars yi moo jaaxal ñu bari ñoom bañ demee ba ñëw nag si la nit dof defee benn vidéo bu 7 minutes di expliquer lan la fa gars yi wuti woon ci biir vidéo bi. gis nañ ni nit dof mi ngi wax ne ñi demoon pale seen intérêt bopp moo leen fa yóbbu dañoo dem ngir wut fa xaalis nan lañ fay wutee xaalis nag lenn la. gis nañ ni avant corona bi di dugg fii ci biir senegal rappeur yu bari waroon nañ tëgg concert ba jàpp seen date par exemple Akhlou Brick Paradise wala One Lyrical wala sax Samb yi ñoom ñëpp waroon nañoo tëgg concert ba jàpp seen date defar ticket yi et def tour des médias ak public lépp. mais ba feebar bi di corona dugg see fii ci biir Sénégal rapport yëpp dañoo annuler seen concert parce que président Macky Sall dafa tere bépp resemblement bañ feebar bi law parce qu'on sait jamais. du coup nag ci la rapport yëpp annuler seeni concert concert yooyu ñu annuler nag c'est vrai que ni perte nañ ci xaalis bu bari nit dof nag ci biir waxam. nee na ñooñu loolu moo leen yóbbu pale pour Macky Sall débloquer xaalis bu bari teg ko ñoom ci seen loxo pour ñu fay rappeur yi nga xam ne dañoo annuler seen concert loolu la nit dafa wax dëgg la nag wala du dëgg gaay yi am na ñu ko gëm comme am na ñu ko gëmul ku nekk yaa moom sa gëmukaay bu la doyee nga gëm bu la doyul tamit bul gëm ma wax nag ci version yi nga xam ne ñooñu ñoo demoon pale ma wax ñooñu ci seen version déglu naawu version Fou Malade nee na ñoom demuñu pale pour wut xaalis président moo jaxle ci feebar bi pour xool nag nuñ ko fiy jëlee mu woo leen ñu ñëw waxtaan si pour ñu xool ñoom rappeurs yi ci seen côté yan solution lañ mën a apporter nguur gi pour jëlee fi feebar bi mais président Macky Sall nee na bu affaire bi jeexee maanaam bu feebar bi jeexee incha allah dina leen may 500 millions pour waa agriculture urbaine loolu la fu malaat wax. léegi jox naa leen version ñaari côté yépp mooy bu nit dof ak ñi demoon pale léegi man sama gis-gis sama xalaat laa joxe ci trois côté yépp muy ci côté nit dof ñi demoon pale jeexale nag ci côté président damay njëkkee nag ci côté nit dof sama xalaat ci nit dof mooy nit dof war na xam ne am na ñu koy bëggee ndax ipo bu muy def war na xam ne am na ñu koy bëggee ndax jëmmam ak nu mu mel nu mu engagé woo parce que moom lépp lu mu gis du yoon loo xam ne day gaañ askan wi da ciy dox kaas ko ba mu jeex tàkk qu'on la vérité. mais bu demee bay wax ci genre affaire yi di accuser nit ne xaalis moo yóbbu ñooñu pale ba lii ak laa pour man war na mën a wane preuve buy wane ne ñi demoon pale xaalis moo leen fa yóbbu bu dee ñoom dañ ko woo na wax lu ñu waxante mu leeralal ñu expliquer ñu ñu mën a xam bu dee dañ koo SMS mais mu wane SMS bi bu dee dañ faa ñëwoon wala leneen mu wax expliquer nit ñi pour ñu xam parce que ay wax kese sans preuve gars yi neexul nit gëm ko. jamono ji boo demee bay wax wane lépp mu leer wane lépp ñépp xam forcéwul kenn gëm ko ku mu doy rekk nga gëm ku mu doyul tamit bul gëm nit dof mag la te tamit xanaa doful bay wax n'importe quoi parce que am na ñu naan lu mu demul pale moo ko déranger moo tax muy siisu am na ñu naan Dip Doundou gis mu mu gis ci groupe bi loolu moo ko neexul moo tax muy siisu ku nekk nga wax sa avis ma jàll nag ci deuxième cas bi wax sama xalaat ci ñi demoon pale ne ñoom ñoo représenté actu culture urbaine Fou malaat nee na président moo leen woo mais kan la président woo ci ñoom loolu moo jaaxal ñu bari ak kan moo leen wax ñoom ñoo représenté actu culture urbaine ak tamit nu aar bi yaatoo pour man même bu leen président woowee ne ñoom ñoo représenté actu culture urbaine war nañ koo yëgal ñu bari parce que aar bi yaatu na aar bi dafa yaatu lool. nekkul ñoom rek ñoo moom aar bi non mais buñ ne hip hop rap bi ci la bokk dance bi break bi ci la bokk beatmaker bi ak animateur bi yépp ci lañ bokk kon buñ demee ba pale waroon nañoo yóbbu benn animateur sax benn benn beatmaker wala benn danseur ñu assister ko parce que ñoom ñëpp ci aar bi lañ bokk mais c'est très louche ñoom ñooñu rek former seen group rek dem pale c'est vraiment louche dafa xaw a lëndëm buñ demee ba ñëw tamit avant tout mais waroon nañoo taxaw ci télé bi expliquer ñëpp lu leen fa yóbbu pour ñu xamul woon mën a xam pour ñi nga xam ne tamit dañoo bëgg xam ñu mën a xam mais non dañoo bàyyi ba nit dof def vidéo ba pare ñuy soog a joxe seen version affaire bi dafa xaw a lëndëm te tamit dafa louche. troisième partie nag ma jeexalee ko ci côté président sama xalaat ci moom Macky Sall Macky xanaa rappeur yi buñ gàttee xel ba dem pale di fa laaj xaalis moom doful ba leen di jox suñu xaalis ak fu réew mi tollu gaay gis nañ ni ñu feebar bi sonalee kenn liggéeyatul am na ñuy ket pour am xaalis mën a jox état bi pour ñu xool nu ñu fiy jëlee feebar bi ñoom bu dee dañoo ñëw demander xaalis pour man Macky Sall doful bay jox ñooñu xaalis jamono ji je pense bien que ni ku jurul sa xaalis jàppale nit ñi wala nga jël sa xaalis jox état bi mu jàppale nit ñi waroo jaar ci suuf di demander état bi xaalis fii nekkul rappeur yi kese ñoo fi yàqule no fii ñëpp a yàqule jaay buñ doon jaay normal jaratul liggéeykat bu doon liggéey normal liggéeyatul fermé nañ liggéey yu bari école yi église yi mosquée yi yu bari fermé nañ ko tey bu rappeur yi laajte Macky Sall xaalis wala laxmaan yi ñëw ku ci nekk di laajte xaalis mais lan mooy des ci kees bi. Macky Sall je pense bien que ni doful bay jox ñooñu xaalis am na ñu ne rappeurs yi dañoo demoon pour sensibiliser mais gars yi qu'on la vérité pour sensibiliser est-ce que dafa jar dem palais non je crois pas pour sensibiliser bindal sa bindal sa message lancé ko wala nga génnee sa son nit ñi déglu ko comme ni ko rappeurs yi defee gis nañ dib dib dundu gis génnee na ci son keneen ak keneen tamit même chose kon sensibiliser qu'on la vérité jarul dem palais. mën nga toog sa gàll bind sa bind sa texte génnee sa son ñi ñi déglu ko loolu rek sensibiliser la sama gaay yi loolu nag man moo nekkoon sama xalaat ci blème bi loolu moo nekkoon thème du jour parce que wax bi bari na trop ci ñaari côté yi muy côté nit dof ak ñi demoon pale ba expliqué naa nag nu wax bi demee joxe naa sama xalaat ku nekk am nga droit joxe sa xalaat maa ngi xaar yéen tamit seen xalaat ku nekk tamit yaa moom sa gëmukaay yeexal lu la neex nga gëm attaqué wu ma kenn défendre ma kenn faralu ma kenn tamit juste rek sama propre avis moom laa joxe. di jéggalu bu baax bu dee juum naa ci benn kàddu parce que xel matul. donc gars yi je vous donne rendez prochainement très prochainement c'était votre sister Kenza n'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne YouTube Kenza 221 et d'activer la cloche de notification pour les autres vidéos qui suivent de liker tamit et max de partage s'il vous plaît peace and love jàmm ci ñëpp. dem leen ngeen wax ko moom. ma ne ko awadi foofu man maa ko wax la maa ko awadi yow tu es nul barke alquran bu ma fenee yàlla na ma safara jël addi ma ne ko awadi tu es tu es nul dem jàkkaarloog keres woon amoo lenn lu koy wax mu naan ay eh, di di di sax di wàcc di lamb di daj di sax di màcc di sax di wàcc di lamb di daj di sax di màcc yow de awa dee moo fa digg di bàcca yow digg di bàcca digg di laajte liggéey la la la lii di nàkkalaa sëq dama xëta sëq dama xëta sëq dama xëta dan ma bul ma gaañ dan ma cooli cooli cooli de cooli cooli sëq dama xëta sëq dama moo taxit keres woon fekk leen fa ñuus leen ñuus yoo xam ni dagati sax la ci génn keres woon jàpp awadi boo xoolee jàpp leen di leen fam famti pamtee di leen ñuus di noq di ñuus di wasaare ñoq leen ma ne ko yow jàkkaarloo keres woon Sénégal yëpp di leen déglu yàlla may leen buntu ngeen jàkkaarloo keres woon amoo lan nga ngay di di di wàcc di sax di wàcc di lamb di tàcc di digg di màcc di moo fa digg di bàcca di ak keroog woon leen ba ñuy ba ba ratt seen dañ